wa ñu fas yéene tàmbali liggéey bi ndax kenn ku ci ne dangaa nekkoon ci barab ñu doon liggéey bi Seexul Xadim doon ko saytu ba liggéey mat ngeen andi ko teg ko ci loxoom mu tàmbali leen di liggéey Sëñ Tuubaa kon na suñ xel dal bu baax a baax. mooy Serigne Mara Gueye ñu ngi ànd ak sa jëriñ jiitu Serigne jiitu voilà Sidy Diop di mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne bi moom la fekk si fii tey ànd ak euh, daayira Miftahoul Sahada suñu jëwrin di Serigne Mara ñu ànd ak jëwrin yi tedd yi ak soxna yi daayira Maam Jaara bi ñëwoon fii ci Touba ziar si Cheikh Mouhamadoul Mountakha tey jii di ziar boo xam ne bii ziar bu bu bu bu kawe la wax dëgg yàlla ndax mboolem li nga xamante ne bi séntu woon nañ ko ci ziar bi rek euh, am nañ ci lu kawe suñ jort euh, Serigne jëwrin Mara Gueye nag mi ngi ànd ak suñu jëwrin Serigne Jili mi nga xamante ni bii mooy jëwrin yi daayira bi nga xam ne bi moom lañ àndal ci ziar bi ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha it mu yàgg fi loolu te wér ndax daayira bi eh, nii ñu nekkee ci ziar bi fi ne nii ñu ngi fas yéene jëm ci ak cant incha allah le 6 janvier noonu la ñuy defee liggéey bi buñ ci jógee ñu ngi jëm Poroxaan muy daayira boo xam ne daayira bu yàgg a ziar la mi ngi dalee ci Cheikh Saliou ba léegi daanaka ku fi nekkal Serigne Touba rek noonu lañu lay jébbale liggéey bi fekk Cheikh Mountakha mi di ko ñaanal rek mu yàgg fi lool te wér kon ñu ngi ziar bu baax di ñaanal soxna yeeg ñi nga xam ne ñoom lañ àndal ñëpp rek di jël kaddu gi di ko jox jëwrin euh, Bouba Sarr mu daal di eggale kaddu yi. di wax rek ne alhamdulilah rabbil alamin di waxati jërëjëf Serigne tubaa ndax loo defoon daaw yàlla suñu borom dimbali la ba nga waat ko loolu ak cant la ñaanaat sëriñ bi moom mu dimbali ñu waat bu baax ba ñu fekke ko waat ay ati at te ànd ko sëriñ bi lépp loo xamante ni bii kenn ku ne def nga sa ñaq si liggéey bii nga xamante ni bii mooy liggéey bi wóor muy addiya nga jox ko Serigne Touba jàppal ni li nga liggéey Serigne Touba Serigne bi nangu na ko ndax lu narta luñ nangta nangu mu ne du si kon nag boo yàlla dogalee suñu borom dimbale la ba boole la sa mbooloo moomee sa addiya ñëw si loxo Serigne bi loolu ak cant yàlla la li mu mënut di wax naan ak yokkute maanaam kon yokkute tàmbalewaat na ren jëmaat déwén yàlla nañ Serigne bi nangul ñu kenn bañ a manqué te kenn ku ne li nga fas si addiya te addiya attan na ko yàlla na ci sëñ Tuubaa dafa ci barke sëñ Muntaxa doole sëriñ Saliou barke sëñ Muntaxa doole sëriñ Saliou xol yi nag sedd nañ bu baax yéen siyaar nag niñ ko bëggee ndeysaan du ñu demee ndax mbir mi euh, dafa ajuwul suñu coobare bopp ndax li sëriñ bi bëgg rek la ñuy fekk si ndax boo ñëwee fi boo xoolee li fi daje si mbooloo bari na trop trop trop trop trop te boo xoolee am na mbooloo yu bari yoo xamante ni bi ñaari nit ñoo si gis sëriñ bi wala ñetti nit loolu nag mbokkum taalibe yi si boobu ñi nga xam ne ñooy bokk ci daayira yi nañu sóoraale loolu xam ne kat lii moom yéene jëwriñ ji ak yéene yow mi nga xamante ne yaa sol sa daan maa ngi ziar sëñ bi mooy yéene mooy gis sëriñ bi wante nag pas-pas yi dañoo tolloowul ndax am na si ñoo xamante ne tey bu ñu duggee ba ci kër sëriñ bi rek jàpp nañu sëñ bi gis na leen te loolu wér la képp koo xamante ni bii joxe nga sa addiya te ñëwoo sax jàppale sëñ Muntaxaa gis na la te sëñ Muntaxaa moom kuy gis ku ne ak faju aajo la te li lay wax ne liggéey sëriñ bi rek a jëra liggéeyal ren ba déwéen da ngay sa bopp soo yokkee di nga xam boo yokkul di nga xam kon nag yàlla nañ si bo sëriñ bi bokk dimbali lii nga xam ne moom la ñu lënkale di daayira bi si ndigalu sëriñ Saliou di Miftahou Sana yàlla na ko sama borom suuxat ko yàggal suñu jëwriñ yi Cheikh Mara si góor yàlla yi soxna may mënatu taw si soxna yi sama borom yàggal leen te dundal leen te ñu ànd kook ñoom dafa baaxoon nag ñuy tudd jëwriñ yi wante ku miin jataayu mur buñ tuddee jëwriñ rek bu buñ tuddul vieux mi sax te mu bokk si daay war naa xam ni daayira bi moom ma nga sa biir kon nag yàlla nañ suñu borom bokk dimbali ñun ñëpp ak suñu murid yi nga xamante ne ñu ngi si diaspora bi ñoom it seen liggéey egsi na ak ñi nga xamante ne bi suñuy mbokki dëkkandoo lañ ñoom ñëpp seen liggéey egsi na si daayira bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamualeykum aleykum rahmatullahi taala wa barakatu